ci nit ñi pour que ñu defal ñu ko ndax ñun dañoo soxla jàng am na albinos yoo xamante ne dañuy dem ba nekk magum jëm ñu mën a nekk duñu mën a def dara ndax tout simplement jàngaluñ leen bañ nekkee xale dañoo soxla euh, santé ndax ku xam puune xam ne ci feebar la dëkk parce que puune léppam feebar la puune bu exposé woo ci naaj bi cinq minutes mooy feebar na parce que yaramam yàqu na bu nekkul ci naaj bi aussi bu tiimee sax écran bu leer bu gi bu paree bu toogee ci wet après day am problème mu vision dootu mën a du mën a jug rek xool dox kon ñun soxla nañ ku ñu taxawu soxla ku ñu jàppale soxla suñu jigéen ñi nga xamante ne ay magum jëmm lañ te jànguñu woon bu ñu nekkee xale ñu former leen dafa leen ay formation insérer ñu am na ñoo xamante ne jàng nañ ba pare am nañ seen i lijaa sax mais ba léegi amuñu liggéey dañuy chômer dañuy taxawaalu euh, suñu kiiwu ren bii

parce que euh, ñoo ko moom suñu àq ak suñuy yelleef talaluñ kenn loxo ñaan ñu kenn li ñu moom la laaj ñu jàngal suñuy doom faj ñu mettre ñu dans des bonnes conditions. waaw waaw waaw buñ sañoon nag autorités yi nekk Kaolack ñu gën ñoo taxaw ndax autorités yi nekk Kaolack dafa mel ne ñoom waxuma sax albinos yi mais handicapé en général dañ leen a bàyyiwul xel. Euh, mën naa ne conseil départemental bi ak euh, ñenn ci waa action sociale ñoo ñuy bàyyi xel mais sinon. Euh, am na yenn autorité yoo xamante ne bàyyiwuñu xel dañoo bëggoon nag ñu bàyyi ñu xel boole ci biir Kaolack lépp lu ñuy cëraateeg lu ñuy seddaate ñu booleñu ci te xam ne ci lañ bokk bëgguñu ay sarax comme ay événement jot ñu ñëw jox la may la xëcc la fii dañoo bëgg li nga xamante ne ñi nga xamant puuni yi nga xamante ne jot nañ taxaw nañ pour liggéey bëgg liggéey ñu jox leen ñu dem liggéey ndax li ñuy naan may ma jën jàngal ma ni may nappee moo ko gën ñu bàyyi ñu may ñu ñu dem liggéeyi mën a amal suñu bokk ba du ñu ñaan macha allah xeex nañ mendicité mendicité ba léegi ñu waxi mendicité dépassé nañ foofu léegi instant bi ci lu ñu toll mooy insérer ñu insérer ñu ñu dem liggéeyi comme ñëpp am suñuy liggéey suñu xale yu góor yi nii ñu yëkkati ci seen place yi

àdduna euh, bépp a koy journée mondiale sensibilisation bu puune la mu nek manam ben catégorie sociale bo xamné ñu ngi dund ak ñun te so xolé euh, lolu jangoro la jangoro la bu jangoro comme euh, comme personne handicapée comme lago la manam parce que sen feebar bi ñom dañ ci am problème yi gis donc ñom nak dañu nek ben cause sociale bo xamné dañu am ay soxla am ay bëgg-bëgg yo xamné dafa spécifique par rapport à la scène bi donc nous avons soxla crème solaire souvent si pour nous parce que ville donc dañuy nous si pour nous trop aussi nous avons fait des comme euh, la présidente tout à l'heure Nous éducation des enfants surtout une éducation donc loolu dafa war a nekk loo xam ne dafa war a jeex ñuy oo nag euh, di defaat beneen di defaat plaidoyer encore di oo autorités locales yi maanaam ñu jàppale leen bàyyi leen xel par rapport ak ñoom seen soxla yooyu nga xam ne dafa spécifique par rapport ak ñoom seen catégorie donc looloo waral nag ñun action sociale muy tey jii nga xam ne mooy ñoom seen journée ak xat-xati jamonoon lu mu xat-xat ñoom dañu tëniroon pour def journée bi tey Nous avons toujours accompagné par rapport à ça si nous nak ñun direction régionale de l'action sociale nous avons partenaire qui ñu Salam Traiteur crème solaire te crème solaire pour nous ko ñu koy jox parce que indi na fi lu quatre cartons yoo xam crème solaire spray et flacon bu nek mun dem si comme ku si am ñaari flacon rek mën na la yobbu ba euh, ba si ñetti weer to lolu c'est pas la première fois mu koy def indi na fi tamit chapeau yo xamné chapeau solaire pour les protéger contre le soleil indi na ko fi mais wul donc sur loolu nous ñu koy remercier parce que c'est la pas du du le la ko Nous a def ñu koy remercier bu et puis di que a autorité surtout nga avons ne tey jii fii lañ ko conseil euh, départemental du Kaolack nga président de président commission santé et action sociale bi nous na ñu lancé un plaidoyer jox ko ko sur mu locale euh, pour nous jàppale vraiment parce que nous soxla ndimbal lañ Wa am nañ ay jafe-jafe vraiment yu bëri ci te tey mooy ñaar fukki at yoo xam ne journée bi si àdduna bi yëpp ñu ngi koy feete te loo xam ne la vraiment am na vraiment ay progrès mais ñu ngi leen ñaan daal ñu gën a dolli. abonné ci Feeling 221 ngir mën am ay xibaar yu wër